لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي أصنع احترام جادلنا باق تعالى عدمنا بك فأنت سيدي خير أنا نويت شكر عليك كلا وكل شيء والكتاب ندام نويت شكر عليك بقلام وخيرها يا سجوامي الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خايدا لي من إلهك المرام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله أموت بذنب تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله أموت بذنب شفت لربي ظاهرا بذا النظام لك وخبله عبوت ميزام وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله إمام البرايا كسب سيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم ونبي المنتقى المنير ينير قلب كل مستنير أحمدنا المختار لا يباهى عند الذي بالبرايا باهى نبينا الأحمد نور الرسل عليهم أزكى الصلاة المرسل نبينا الأحمد نور الأنبياء دما قدل دما يبقى الشيخ mu yëkkati ay kàddu kàddu yoo xam ni moom mii yonent bi rek la bëgg. dëgg la de ñaari doomi jigéen ñi ko yàlla jox yonent bi la leen tuddee. muy Busra ak Noura kii boo bëggee dàkk ak bëggam tuddal yéen it yaakaar naa ne tey nag mu tombe nag date anniversaire di 18 octobre muy bis boo xam ne nag a àdduna ak rasulillahi sallallahu alayhi wa wax na lu ne yéen wax na lu ne yéen bi tagg na ko lu ne Sëriñ Tuubaa nee na àddina benn bànneex rek a fi am. ñu ni ko ban la mu ni bëgg Muhammad kon nag seen toogaay bii yàlla na yàgg lool dama koy bàyyee kaddu gi nag mu yëkkati kaddu nuyoog sëriñ bi ñu ñëpp ñu mas bi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا

mooy sëriñ Abdou Gaynde Fatma mhm. sëriñ bi maa ngi lay ziar bu baax ci weer bu tedd bi ci guddi gu màgg gi ci guddi gu sedd gi maa mbégte lool ñëw fii passé ànd ak yow ci guddi gi sama maam yàgg ko taxawee nga ñëw di ko doxal doxalin bu bu sell bu rafet ba képp ku yeewoo fii ci ndakaaru yëg na taxawaay bi nga am ci guddi gi yàlla na suñu fay la ko ay yiwu yu dul jeex mu wesaare wu fépp ci réew mi doon jàmm ak naataange ci réew mi sëriñ bi duma guddal kàddu gi fi ma koy accès rek tey mooy ci doon ne léegi diggante Serigne Touba ak yonent bi sallallahu alayhi wa damay jàng asiru mais li ma ci yéem dama déglu bato bu njëkk ba nga xamante ne charbon moo ko daan doxal mu nekk vapeur soo déggee bateau bi su tegewoo ci ndox su dawee ba nga gis vapeur bi soo démarqué ci daaju assiru dangay xool ni assiru bi bi ni sëñ Touba décidé imposé tubaab bi ci fa mu jëm moom ndax da ngay gis ñu ne assiru bateau bi tàkk na su tegoo ci dox bi nga dégg mu ne maanaam rëy dina assiru nga gis hélice bi mel ni day lalante ak ndox. nga xam ne kii waajaloon na boppam ci dem bi moo tax lii moo tax soxor yu bëri ci réew mi ndax dañu dem ba ba comprendre tuñu affaire bi li tax mu egg fi tey ji ndax dañu kaste seeni xol mais li gën a yéeme mooy soo demee làmbale ne courant bi ndox bi dafay dafay ñëw ci courant bu intense foofu dafa am jasik am lu ñuy wax muuj setc tubaab bi su bëggoon liquider nit koo xamante ni yaa ngi bàyyikoo ci suñu réew yi climat sahélo-sahélien la suñ la yóbboo ci climat équatorial su la mu zz màttee hémorragie interne lay def moo tax tubaab bi bëggul woon rey mais day da lay yóbbu mu mel ni ku la bëggoon defaale exécution ñamu ñamu ñamu ña ca jaar ñëpp mucc ñu ba mu des Cheikhul Khadim li ko waral nag mooy mucz muy yow ak gasig bi mu ndox mën géej mën mën suuf ñaar ñooñu ay taalibe yonent bi lañu sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu mujizat su daan jege dellu Cheikhul Khadim du ko mat day ñëw tiim ko di barkeelu ci leer gi bàyyi ko ci deram loolu jaaxal na léegi ba léegi doomu aadama yi ba ca topp mooy Cheikhul Khadim saa yu daan ne bëreet jëm ut lox ca dex ga diastique bi lu mu excité excité su seenee Cheikhul Khadim day reculer ndànk di yëngal génn di barkeelu ci leer gi bàyyi ko ci Cheikhul Khadim ak xet ku neex gi daan bàyyi ko ci moom ndax tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yóbbee woon loolu barkeelu boobu nag moo indi woon ba lii di jasi ak yoo bi ñuy wax mujizat dem ba nekk ay taalibe Cheikhul Khadim ndax déggal ko nangul ko moo tax sëriñ bi bi muy wax léegi ne ñiy yëngu di di wax wax yu ñaw jëmee ko fii ñoom nag daanaka sax li ñu def metti ndax ñun suñu cofeel ci ñiy tagg yonent bi rawatina Cheikhul Khadim saa su ne suñu yeewoo day gën a yokk ndax ni mu mel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko dundam jox ko jëmmam di ko tagg taggin boo xamante ne soo déggul arab sax soo déggee bayit yi ni mu tàmbalee su ba suy daanu ni muy def sa xol sa xol dafay set soo koy déglu sooy déglu daaj soo toogee nag sëriñ bi indil ñu guddi gu mel nii ñu teewee ko ñu ab sant gu rëy la ci ñun moo tax ñu doon témoigner kàddu yii di la sant nag bu baax a baax a baax ci dalal gi ci tedd dànge gi di ñaan yàlla mu yàggal la fi yàlla wéral la parce que sa dund am na njëriñ ci réew li nga boole mooy d'abord élégance dans le port vestimentaire mais élégance aussi dans la clairvoyance à travers tes tes nobles idées yi ngay développé saa yu ñu la joxee micro lépp lalu ci sagesse moo tax les fines intelligences ci réew mi dañu war toujours di côtoyer parce que seen i seen seen i lëkkaloo mooy indi jàmm ci réew mi mais mooy indi aussi réew mi koom bi koom bi dem ca kanam soo gisee nit ñi excité c'est parce que tey jii koomu réew mi ma ngay daw di wuti Touba benn ñaareel ba mbokk yi ñu bàyyi xel lii bu baax a baax a baax a baax réew mi Cheikhul Khadim tagg yi mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku am xel bu xarañ yaa ngi xam ne réew mi mi ngi jëm ci naataange képp ku am xel bu xare ci ñaari mbir ñu ne corona am na daaw kenn bâchatul sëñ Muntaxa joxe ndigal ne màggal am na parce que yonent bi su buggee wane mbiru mbiru mbiru mbiru mbiru ku bokk ci moom daf koy isolé isolé événement am li moo indi woon jamono jooju màggal rek moo xew ci àdduna bi ba mu jeexee dégguloo benn cas bii passé nag moo gën a yéeme ndax daa mel ni bi mu amee ba jeex ndax ñi woon ci troisième vague daa mel ni màggal gi dafa tàmbale corona di dawaale di génn bi màggal jeexee mu dal di abalewaale lii moo moo xew ci réew mi ndax ndax Cheikhul Khadim ni mu taxawee ci cofeel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko isolé isolé événement am ñaar yooyu mu isolé nag ku am xel dëgg xam nga ne réew mi jarul fitna jarul fippu jarul ñagasi kanam sëriñ bi wax na ko léegi neen soo bëggee Cheikhul Khadim sa kanam dafay nes nesi soo bëggee Cheikhul Khadim da ngay am jàmm aussi soo bëggee Cheikhul Khadim sa koom day barkeel ba noppi doo ñee kenn ndax bëgg gi nga bëgg Cheikhul Khadim lantinoor la bu jëm ci gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa te li yàlla wax yonent bi doy la sha ma zaahal basru wa ma taha laxat raa min ayaati rabbi il kubra lii la Cheikhul Khadim wax mu toftalu nag ci aaya benn ci isra Cheikhul Khadim duñu yëraaleel loolu li yonent bi bëgg ci abd bi ko yàlla wooyee subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa ila al masjid al aqsa alladi barakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul ñaari sëriñ bi benn bi dafa wax ne afin de lui montrer certaines de nos grandes merveilles beneen bi mu wax afin de lui montrer nos grandes merveilles kon nag yonent bi rañaalu benn yoon jëm ca borom bi te Cheikhul Khadim moo ñu ko xamal benn waaye dafa ma wax ne man de baat bi ma yéem mooy fi Cheikhul Khadim waxee ida katabtu tasxa arshul baaxi wa sabaxa malaykut tibaaxi mu ne daf ma yéem ma ne ko ñaar nga ci jël benn bi le lotus des confins muy juróom-ñaareelu asamaan extrémité bi pour xam la fa xew il faut nga am autorisation divine beneen bi il faut nga am anoblissement reine d'Angleterre su ko neexee day jël citoyen kenn ci ñoom woo la ne la anoblir naa la maanaam goreel naa la te su yàlla goreelee jàmmam te goreel na Cheikhul Khadim bi mu ko goreelee la ko may mu am accès ci ginnaaw le lotus des confins am accès ca pays suñu borom mën a xam li xew ci diggante yàlla ak yonent bi moo ñu ko déchiffré summa dana fatadalla fa kaana xaaba xaw seyni aw adna loolu Cheikhul Khadim moo ñu ko déchiffré maa ngi leen di sant bañ a guddal kàddu gi di la gërëm sëñ bi di sant ci occasion bii nga ma may ma mun a wax dara ci Cheikhul Khadim mu def jàmm ci man def ubbeeku def yokkute ndax Cheikhul Khadim soo ko tuddee da ngay da ngay yokk da ngay am jàmm da ngay am puissance de dignité da ngay am puissance de foi loolu nag dal nañu ci li nga ñu dimbali nii maa ngi lay sant di la gërëm alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ko mu dafa am lu muy xasee ba wax ci genn kàddu boo jiite rawatina nag mu yëkkatuloo ci koo xam ne suñu wëllëre la suñu wëllëre mu yàgg ndax gàmm gi mu daan def fii ci Ouest Foire daanam fa teew luy yoonu yoon kon nag Cheikh Abdou ne mu ngi lay sant di la ndax ngeen ngi mi def moom képp ku ko sopp rek dama sopp Sëñ Tuuba yow nag sa diggante ak yoonu murid nag kenn nattaleetu ko ndax mboolem lu xew ci yoon wi kenn ku la fay jiitu amul ba bërki dem moo njaay képp nga dem Daaru Musi jaala ji Serigne Abbas jaala ci Serigne Bassante Niang loolu sax cofeel ci rek ko ndax xam nga diggante Serigne Touba ak Thierno moo waral lépp lu ne daal yoonu murid rek yow da nga yëkkati sa tànk sax te loolu waaye loolu nag sa bopp rek nga koy defal ndax ndam rek nga ciy jëlee. ndax doo ci jële benn ay avancement nga ciy jële ak tawféex ba ca des Seex Abdul Ahad Mbàkke nga ko defal rëy na ci moom lool ndax guddi gi day xam na ne yow xam na ci yow lool ndax fi nga war a dem bari na ba pare yow teewul da màggal guddi gi sa màggal guddi gi man xam naa ci dara ndax yàgg nga koo teewal ma teew ci ba tàyyi kon nag boo bàyyee sa yitte yépp ñëw fi loolu moom mu ngi la ciy sant di la ci gërëm te li la xam ne àgg na ci xolam kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal te xam ne yow benn yitte rek nga am muy lislaam ji doon benn benn yitte nga am mooy lislaam sax ci réew mi loolu moom kenn nattali ndax fenn fu nekk yaa ngi tukki sa déplacement yëpp ak sa yitte yëpp mooy diine ji rek sax loolu rek mooy sa yitte ak sa cofeel ci ngeen bi mu def kon nag loolu moom dañ la ci ñaaral suñu borom gën la cee taxawu gën la cee jàppale ba yoon wi nga jël muy yokkute goo xam ne gërëm yëpp dinañ ko gis kon ñu ngi lay sant di la gërëm loolu kàddu yooyu la sëñ bi waxoon ne nañ ko yëkkati di la xamal ni daal moom lim la wax rek xolam sedd na bu baax a baax ndax guddi gi moom soxna may ko fi taxawuloon kon nag moom ci àddina amul genn guddi gu ko gën a rëyal guddi gi kon nag boo fi teewee moom desee lu tudd dara asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu la ilaha illa allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun fi dunya wa salaamun fi al-aaxira wa salaamun fi makanina وسلام في مكانتنا وسلام على عباد الله الصالحين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين